mbokk internet di ñu ngi leen siyaar bu baax ci leen wax ngeen dal jàmm sur sport 221 kuy gan ci page bi la ñuy ñaan mooy nga abonné gars yi nag ba la ñu bëggee jàppale ci di like video yi very c'est très important septième journée bu Ligue 1 bi doon nañ ko tàmbali bi kon jamono Dakar Sacré-Cœur mu jël tembo zéro bi partout Teungueth FC am ndam bu yaa US gorengnya ñaari balik darah dara enak mau kayak main may mu leader cilik Ligue bi ah, 15 points et que ki nga ne moo dàq dugal mooy seen jeune joueur bi mooy Mbaye Jacques Ndiaye moom mi jot na lakk jaay kon bi mooy quatrième biom de la saison ci Ligue 2 Éneziof Thiès FC moo ko fekk daan ko 1 bi à 0 dem ba Diop aussi Kër Madior daan ko 1 bi à ci Amitié Oslo FA Tembo 1 bi partout ci même score boobee la HLM ak Duc taqaliko xam ngeen ne suñ gaynde bi yéen mooy Iliman Ndiaye dañ ko teg daan yu diis dina toog 3 match du ko joŋante mën naa ne sa ñaari match moo ci des. li ko war a nag mooy que tacle non maîtrisé bi mu doon amal bi mu amaloon seen jot bi ñu amal contre Stade ñëw carton rouge ko. Gattuso di coach sa moom ci na ci ay kàddu nag mu ne ñaari fan a nga ni kat mi ngi waxtaan ak kenn mooy Iliman Ndiaye vraiment nag lu metti la pour moom am na déception dëgg. waaye ndogal bi nga xam ne nag arbitre jël na nga wala boo commission bi moom mënu ci xuus lu bëri waaye li mën a wax mooy kat voilà nag ëpp na vraiment daañu ko teg dafa xaw a diis pour l' bi. Moussa Wagué def ay performance yu mucc ay ci championnat cypriote yi kon jàppale loole mooy tax nag club am tabb ko jour bi gën a xarañ ci mois bu novembre bi actuellement club am ñooy quatrième gi nag bañ jogante treize journées. Francfort-Varane nag vraiment fort devant les Bavarois ñu daal leen 5 buts et que club bu Thomas Tuchel boobee gëj nañ leen daan score bu ni mel wala bokk Bayern depuis atum deux mille deux mille dix neuf et que sax même même score daanoon Francfort moo fa jaaroon. kon ñoom nag jox nañ occasion waa Bayer Leverkusen de Xabi Alonso buñ daanee ce dimanche face à Stuttgart dinañ rawee les Bavarois. cinq points ci classement ba. Inter mujjee daan Udinese 4 bi à la Lautaro Martinez jotoo lakk jaax yi. kon dugal na vingt neuvième biom ci Serie A ci atum 2023 bii gën nañ ko gis nag depuis atum atum 2000 c'est les nerazzurri ginnaaw gi Italie ñuy utali ci Angleterre kon jàpp leen club bi mooy man sa Manchester United ñu ngi ci jafe-jafe ndax bon moom moo leen fekk foofa ci Old Trafford da leen 3 bi à 0 et jàpp leen ci saison bi kat dara doxul pour club bu Erik ten Hag bi. ndax buñ soxandikoo ci kayitu xibaar yi kat ci 23 match yi ñu jogante ci saison bi am nañ ci onze défaites ginnaaw gi jogante boobee nag seen capitaine di Bruno Fernandes moom mi ngi indi jéggalu nag jëmale ko ci supporters yi seen performance bi nga xam ne kenn mënu ka nangu. ek supporters yi mere nañ leen ndax kat doon lañ leen yuuxoo bu baax a baax. Bruno Fernandes dañ fësal ci xibaar yi ginnaaw ba mu amee carton seen jon bi ñu war a amal contre Liverpool du ko mën a teewee. bu ñu soxandikoo ci sport nag spéculation yi kat mi ngi jiib foofee ci Angleterre ñu nekkat dañoo war a dàq kii nga xam ne mooy Erik ten Hag ndax résultat yi muy wane dara baaxu si. Angleterre média yi dal nañ seen kaw bu baax a baax voilà nag gàcce dong de la ñeen tegate bu ñu soxandikoo ci Daily Mirror ek sën ma ngay fësal kat voilà. retour sur terre xam nga ne ñoom mois novembre bii kat voilà jël meilleur entraîneur Mirjur arimorgoe eke bibu goneranyeku jiker nojo waika te balade luar naisen plus pungisokon di koji zesen. Kelebu yudgon kelebi li Liverpool mudan Crystal Palace Oxon ñaari bal ci benn lolé mo leen may ñu doon leader en Angleterre mo sala ginaaw gi biom bobé jappelé nak mi ngi continuer nak di bind taarixam ci ci ci ci palmarès am dugg na 200e biom avec Liverpool et que 150e but en Premier League kon moom dugg na ci top 10 yi am na ñoo dàq dugal ci Premier League bi et que ci saison bi voilà dugal na 27 buts voilà et que jàppale Aston Villa moom nag léegi mooy troisième au classement ginnaaw ba mu daanee. City kon club Unai Emery boy Unai Emery lay wasa ñoo Arsenal 1 bi à 0 et que jàpp leen 15 victoires de suite à domicile pour Aston Villa vraiment lu rëy la technicien espagnol bi di wane. ginnaaw gi ba ñu daane Man City ñu ngi woon ci 14 victoires d'affilée voilà nag loolee mën gën nañ ko gis depuis 1930 waaye nag record boobee nag kii nga xam ne Unai Emery moo koy baat mu tegle 15 matchs kenn mënu ko daan à domicile. Real ak Betis mu mujjoo tembo bi partout ka dugal bi bi du keneen ko dul Jude Bellingham kon 18 matchs yi jonte en tant que joueur de Real de Madrid dugal na 16 buts amal 4 passes décisives. ginnaaw gi jogante boobu Isco doon na saafonte kenn mooy insolite ak ay anciens joueurs moom mi nga xam ma ngi wane boppam fu fekkee Real Betis et que Youssouf Sabaly comme ni mu ko fasoon du yàgg dara. ngeen mën ko gisaat mu amal ay jogante ñu desandi ci Espagne Ancelotti mu bawoo ci Arabie et que nag moom mi ngi naan kat fekkee xaalis dong la de moom manqué wu ko ba tax na kat vraiment nag euh, mi ngi ci jàmm ak salaam kon moom fekkee xaalis boobu ñu koy proposé foofee ci Arabie Saoudite foqul benn yoon li nga xam ne mooy ay bëtam. Vinicius Junior moom mooy nga mi ngi liggéey balaa nag pour mu mën a ñëw le plus tôt possible comme sport ni mu ko fësalee jàpp leen bu baax en janvier lañu fësal bu ko defee lépp yem mu mën a delluwaat ci ay jonganteem. Xavi li mu fësal ci xibaar mu ne nag bu sañoon dafay garder kii nga xam ne mooy João Félix ndax moom xam na ne portugais bi kontaan na lool di doxal avec le club catalan de même que ki nga mooy Cancelo kon Barça buñ bëggee loole nag faw ñu def ay jéego génn ay koppar yu ko fay ko ci ko Madrid ak Man siti lan moo waral Xavi choisir Cubarsí au lieu que Mikayil Ngor Faye wala boog wala euh, Mbacké Mamadou Mbacké fal blessure bu Inigo Martinez mooy tax un yi voilà mën a puiser ci réserve bu Barça bi mën a utukat défenseur central boobu bi am doon na wane kon savi nag dafa choisir mooy Pau bu ko defee kat mu amal euh, ce dimanche face à Girona à partir de 20h GMT. li waral mu amal tànne Bobé, ak ab estafam jàpp leen bu baax mooy que kenn mooy dafa am ADN. a la de la Masia wàllum tiki-taka vara des sortes propres de relance propre pour espoir lu ma ngay fësal kenn mooy Mikal Ngor fay ci fànn boobee kat Kourbassi dépassé na ko lu bëri alors que Kourbassi jàpp leen doon a jonti leen mooy mondial U17 et que média espagnol la ñu fësal contrairement Mikayil Ngor Faye mooy que kat benn jour bi nga xam ne balaa bu amalee tàkk rek stade bi yëpp mën nañ jóg comme mën naa ne foot à l'anglais loolee la gën man kon ci fann boobee nag Kourbassi nii nañ raw na ko wala ñoom la loon jàpp Araujo moom dina jouer ak masque de protection contre Girona comme ni niñ ko la ci xibaar yi. ñaari ndaw yi nga xam ñu ngi leen xaar la saison prochaine foofee ci Espagne xam nga ne Endrick moo gàddu championnat brésilien bi ci noonu ci saison bi ginnaaw bi mu joxante 53 match mu jot a dugal 14 bit mu amal benn passe décisive naataangoom bi mooy Victor Roque bi nga xam ne sax du yàgg dara dina ñëw fa fekkee Barça 28 décembre lañu fësal mu amal ay tàggatoom 45 match la amal mu jot a dugal 21 bi amal 8 passes décisives alors que kat moom absenté na 2 mois li ko waraloon mooy dafa amee gaañu gaañu. Alves xam nga ne dañ ko tuumalal wàllum viol loolee mooy tax sax ñu tëjandiko ndax kat dinañ amal procès et que ka nga xam ne nag mooy victime bi moom ak i avocat am ñu constitué ñi ngi laaj voilà cent cinquante mille euros kat l'international brésilien et que ñi ngi saako ci ka nga xam ne moo koy àtte ñu tëj ko douze ans de prison ouf de pour Ajax bi nga xam ne ci ndorteel saison ma ngi woon ci zone rouge bi naam éliminé nañ leen ci Europa League bi waaye seen championnat kat ñoom génn nañ ca zone rouge ba léegi kat ñu ngi ci cinquième position bi ginnaaw bañ daanee sa samedi. ñaari bal ci benn Olympique Lyon ñi ngi en contact avec l'Algérie bi mooy Saïd Berrama bu ko defee kat ñu mën ko transférer cet hiver mu indi leen dimbal Amadou Onana nee nañ benn cible la bi nga mën a benn cible la bi nga mën a utile fa fekkee Barcelone Fernando Polo moo fësal xibaar boobee Ekram Konur ci ay xibaaram Jadon Sancho dafa bëgg delluwaat fa fekkee Borussia Dortmund Chelsea Palmeiras kër Brésil boobee ñu ngi ci waxtaan bu ñu soxnikoo ci góol Brésil mu nekkat bëgg nañ lool ndaw bu ñu naan Estevão Willian 16 ans la am benn ailier droit la ak transfert boobee nag tot booy le ak ak estafam wala bëgg waa Chelsea pare nañ pour teg ci table bi 40 millions d'euros et que sax li ñu fësal mooy que voilà yemb na. trois mois d'absence pour Ansu Fati ginnaaw bi amee gaañu gaañu Roberto De Zerbi moo fësal euh, ñu jaay benn yoon kenn mooy Armando Broza ci mercato hivernal bi dañ koy conserver presse saoudien bi ñoom kat euh, voilà ñi ngi doon souligner Sadio Mané xam ngeen ne gagné dugal depuis si match waaye nag moom mi mooy Nacho bi. mu nekkat du yàgg ya dara di nga ko gisaat muy dugal loolee dina ñëw wala ak détermination bi waaye lu ci mënti am dugalul de waaye kat mi ngi joxe ñuy dugal ndax ñaari kan passe décisive la amaloon seen jonte bi ñoon amal ce vendredi. sélectionneur national bi Aliou Cissé doon amal waxtaan ak këru xibaar bi mooy la Provence. indi na nag ay tontu yu bëri waaye liñ ci mën a jàpp mooy que voilà wax na ci ki ngeen mooy Pape Gueye bi nga xam ne voilà nag benn pilier la ci tanière bi moom participé na mondial bi champion d'Afrique ci atum 2020 dañ koy xaar bu baax mu Forest bi ci CAN 2024 dinañ ci ñëw ci biir waxtaanu El Tactico moom nag mu ne mësul bàyyi benn yoon ginnaaw ki nga xam ne mooy Pape Gueye ñoom toujours ñu ngi woon en contact di waxtaan lu si bëri. ndax moom gëj na ci teñeer bi ba ñuy daan Brésil 4 buts à 2 voilà foofee ci Portugal 20 juin la woon et que nag jonte ba ñu mujjee amal contre contre Cameroun mënu ko woon teewee ndax amu woon temps waaye nag moom yi si woon na ay coéquipier ñu toog ci table voilà lekkandoo waxtaan lu ci bëri loolee nag pour wan ko nag wala bàyyi ñu la ginnaaw toujours kat ñu ngi lay bàyyi xel. ginnaaw gi ba mu jógee Séville nag moom mi ngi liggéey bu baax a baax xam na moom li nga xam ne moo ko war ci biir terrain bi et que moom am na confiance ci boppam moom mi nga xam ne mooy Pape Gueye du samay kàddu Aliou Cissé mi ngi wéyle mu nekkat benn milieu terrain bi nga xam ne vraiment il est polyvalent mën jouer comme milieu de terrain relayeur récupérateur de même que parfois voilà en défense centrale on se rappelle bien Sampoli mës na ko utiliser kat ci poste bu ne avec les Marseillais et que nak benn zone bu xarañ la ndax kat vraiment il est technique et que tactique yi nga xam ne moom nga koy tëral kat da koy appliquer à la lettre. et que li ko gën a nekk ci moom Aliou Cissé mooy wax mooy que vraiment nag amal na ay jéego sur le plan offensif ndax foofu ci CV gi do nga gis mooy lakk lu ci ndax nañ compter ci 2023 bi ci Côte d'Ivoire dina trouver rythme bi nga la nga xamee depuis seen joor bi amal contre Lyon mu ne nag Sénégal benn pays la bi vraiment dañoo ambitieux ndax kat suñu mbébét ñu ci Côte d'Ivoire gàdduwaat raay bi ci ay kàddum Aliou Cissé mooy wax mu ne nag ñun ñoo war a liggéey ci fànn boobee waaye dañuy conditionner meilleurs éléments ak ki nga xam ne mooy Pape Gueye kat bokk na ci. kon gars yi loolee muy fi ne ek sans surprise Pape Gueye dina figurer ci liste bu El Tactico bi. ek nga xam ne nag ñu koy xaar voilà nag mu bokk ci du keneen ko du Abdallah Sima bi xam ne kat mi ngi wéyale di lakk caax yi la amalaat sa samedi. face à Dundee foofee ci championnat écossais bi kon nag dugal na neuvième biom en euh, premiership mooy que championnat écossais bi et que nag bi mooy treizième biom depuis le début de la saison pour rappel Brighton moo ko abale waa Rangers kon gaañ ñi ma ne foofee xibaar dinañ jaajëfal ba beneen yoon Sud Sport 221.